bàyyiwoon ko fii ni ma ko fi bàyyiwoon ba léegi noonu laa ko fekk mais bi ma fi bàyyi maa ngi doon yëngu tuddee neex ba pare xoolal bu ne yëbal nit nga jooy mais daam daam ah foo nga koy leeral tukki wóor nga toog toog la xaar non waxuma la loolu yëngu daal man toog toog dama yaakaar bu ngeen sa géer ma dama bëgg kii jàppale la ah, xanaa kontaan nga de ah kontaan naa kontaan naa kontaan naa <laughs> ah, eh, xaw ma lu yàlla doon xanaa bàyyi <laughs> tey tey affaire yi amul quoi. Ah, amul waaw. yàlla nay yàlla nay gën a ñàkk. Eh, waaw boobu nga am taw. Hmm, waaw naka jekk kay. <laughs> maa nekk ci yow ku la fi daam sama sama nit la. waaw yow doo ma bàyyi ak moom loo ma loo ma contrôlé. problème bu laa xamul ci ginnaaw aar ma ba tool ma toog di toog euh, damay damay burle dugg de dugg de waaw naan man lu ma wax dama koy def. ak caayam gii bu hmm. ko changé woon hmm. du am xaalis ay nit bu doon xool boppam soog a wax sa jos moo tax ma lay ñaan <laughs> ma ni ma ni li nga waxal dukkure sa jos moo tax ñaan <laughs> yoruma ko amul ñaan rek léegi yaa gore xool sama ngor laa ko dindee jëlal lii non duma ko laal duma ko laal